axousubillahi min asheytaan irrajim bismillahi irrahmaan irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalallahu wasallama wa baraka ala sayidina wa maulana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadimihi wa ummatihi ajmain asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi dellu si nañ ci bindu juróom-ñaareel bi ci waxtaan yi nga xam ne mi ngi aju ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ca niñ ko waxee woon rek lépp day aju ci wala dañ koy sukkandiku ci téere bu tedd bi nga xam ne dafa dajale ay julli ak i tagg ak i nettali xew-xew ak i jaar-jaar yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam sëriñ tubaa def ko muy jazbul xuluub li allaamil xuyuub tey nag dañoo dugg ci bunt bu am solo muy bunt boo xam ne mooy bunt bi nga xam ne ci lay nettalee ak a tagg ñettee woon ca xare bu màgg boobu ñu woowe xaswatu badrinil kubra muy xare badar yonent bi alayhi salaatu wasalaam nag xare yim def bari na lool waaye xare bi di xare badar mooy bi ci gën a siiw yonent bi alayhi salaatu wasalaam xare na lu mat ñaar fukki xare ak juróom ñaar ci li gën a siiw xare nag buñ ko waxee mooy xaswa mooy yi nga xam ne da caa génn ànd ca te bu masaa demit daa bokk ca ña nga xam ne ñooy xeex ngir taxawal lislaam ngir défendre seen diine waaye it ngir yaatal woote bi nga xam ne mooy woote bi lislaam bi bu dee yi nga xam ne nag téewu ko daa yebal lenn ci saxaaba yi loolu lañu tudde sariya loolu moom mi ngi toll ci juróom-ñaar fukk ak ñett ci li gën a siiw téewul nag lim bi wuti nañ ci waaye daal gazwatu badrin kubra mooy bi ci gën a siiw nga xam ne mi ngi am ci atum ñaareel bi atum ñaareel bi ci gàddaay gi ci weeru koor mi nekkee madinatul munawwara kon day mel ne liñ nekk màkk yépp amuñu ndigalu fayyu amuñu ndigalu xeex waaye bi ñëwee madinatul munawwara ba ci atum ñaareel ba ci la leen borom ci at at mu njëkk ma sax la leen borom bi jox ndigal ci ñu xeex am na xare sax yu jiitu badar ndax xare bi njëkk ñu ngi koy wax gazwatu waddaan moom it ci atum ñaareel bi la tàmbali ba ca xare ba mujj def ñu naan ko gazwatu tabuk nga xam ne mi ngi ko def ci atum juróom-ñeenteel bi ci gàddaay gi xare yooyu yëpp boo ko boolee ni ma ko waxee léegi day mat ñaar fukki xare ak juróom-ñaar yoo xam ne mooy yim fekke moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam yim fekke wul nga xam ne daa yónnee yooyu moom moo ëpp waaye yi mu fekkee ànd ak ñoom ànd ak ànd ca xare ba lim bi gën a siiw mooy ñaar fukk ak juróom-ñaar loolu la ñuy tuddee xazwa yi mu fekkee wut yooyu la ñuy tuddee sariya xare badar ci weeru koor la woon ci fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor ci atum ñaareel bi ci gàddaay gi mu nekkoon ci diggante jullit yi ak yéefar yi nga xam ne ñoo nekk màkk ca xataloon leen nangu woon seen alal di leen bunduxataan ñoom it yàkkamte woon nañ jàmmaarloog ñoom lool xare bi nag lu yaatu la génn gaak sabab baak la ci aju yëpp waaye dañ koy tënk rek ci gàttal muy ba ñuy génn booba yëgguñ yëgoon njëgg mu Abu Sufyaan yoroon jëmoon saam njëgg mooy marchandise mu baree bari te ñoom li tax seen marchandise yi gën a mën a bari muy alali jàmbur lañ nangu alali riba alal yoo xam ne alali saxaaba yi la yuñ nangu ci ñoom bañ gàddaayee te am nañ droit fay jëlaat seen alal jooju biñ leen joxee ndigal nag ñu fayantoo ci lañ yonent bi sallallahu alayhi wasallam diisoo ak saxaaba yi diisoo it waa ansaar yi nga xam ne ñooy waa madinatu munawwara te nekk ay jullit te nga xam ne lim bi ëpp ci ñoom ci ansaar lañ bokk bañ dëppoo ci génn gi nga xam ne génn ga la ko waraloon ci njëlbeen ga mooy dogale Abu Sufyaan waaye bañ demee ba ca biir ci la Abu Sufyaan dafi pexe ba teggi yoon wa waaye dafi pexe it ba yëgal waa Màkka ñu waaj génn ndax Muhammad ak saxaabam génn nañ ba waa Màkka yi ñoom it mel na lu yàkkamte woon daje gi ndax liñ yaakaaroon mooy ci daje googu la lépp yu jeex bi ñuy génn ñoom it Abu Jahlin moo leen jiite matoon nañ junni ak lu teg yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom bi muy génn moo jiite woon saxaaba yi matoon nañ ñetti téeméer ak lu teg ba danañ faral di wax sax ci ay lim ci ay téere yu siiw ne matoon nañ ñetti téeméer ak fukk ak ñett biñ génnee ci lañ dem Badar Badar nag place ba moo tudd Badar ay teen la woon yu yoo xam ne nii ka ko moomoon moo tuddoon Badar ñu koy woowee Badar place ba jullit yi ñoo fa jiitu ñoo fa jiitu yéefar yi di xaar yéefar yi ñëw ñoom it biñ dikkee ci lañ agsee ci xur wi nga xam ne ci lañ war a xeexee ak la fa xew lépp ci la saxaabi yu jalil saxaaba bu baax mu naan Saad ibn Muaas joxe benn xalaat bu am solo mooy nañ defar benn xayma boo xam ne nii dañ koy defaral yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu di fa nekk di diisoo capitaine yi waaye di fa waxtaan ak ku mu war a waxtaanal bu bëggee dal it mu di fa dem ba keroog xeex bi jeex ci la leen yonent yàlla bu tedd bi nangul loolu waaye teewut guddi yañ fa nekk yépp yonent bi sallallahu alayhi wasallam day fanaanee julli ak a ñaan borom bi ndam ñaan borom bi mu taxaw saxaaba yi nga xam ne lim bi nga xam ne moo war a xeex mooy bi desee yàlla ci kaw suuf nga xam ne buñ leen gañee ak yéefar dana not comme ni mu ko doon waxee ca ñaan ka wax nañ ne daana ñaan sax ba làmbaay wala kol gim daa teg ci kawam day wadd Abubakar moo koy for di ko tegaat ci ay mbaggam naan ko yow yonent yàlla bi noppalal sa bopp suñu borom dana nangu sa ñaan yooyu yëpp ay xew-xew la yoo xam ne nii yu fa xewoon la lu jiitu xeex bi ba niñ dikkee ñoom yéefar yi ba bis biñ war a xeex muy fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor ci la Abu Jahl dikkee ak mbooloom mu bari ñu ànd ak seeni ngànnaay jullit yi di mbooloo mu néew moo xam ne liñ yoroon ci waruwaay bariwut liñ yoroon it ci ay ngànnaay demewut noonu waaye seen fit ak seenu yàkkamti ak seen xam gu ñu xam ne danañ am ndam ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na leen ko ne leen borom bi dig na ma ndam ca danañ am ndam ci la abu suf abu jahlin sàkku ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu tànn ñett ci aw nitam moom abu jahlin it mu tànn ñett ci aw nitam ñu def benn mu baara sax maanaam ñu xeex balaa xeex bi tàmbali ci la yéefar yi tànnee xutbata ibnu rabiha shayba ibnu rabiha ak walid ibnu xutba bim tànnee ñettam moom aboo jahlin mi nga xam ne moo jiite woon noonu yi saxaaba yi ñëpp dañoo bëggoon yonent bi tànn leen ku ci nekk rek yàkkamte woon nga mu tànn la ba nga wane li ci yow waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci xikmaam ak ci xam-xamam ak ci xereñam moo xam ne bu tànnee ay jàmbur mën nañoo teel a faatu ñu ne yonent bi Muhammad daa tànn ay nit yoo xam ne ay jàmbur lañ bàyyi fi ay mbokkam waaye daa daal di tànn ñi ko gën a jege ci wàlluk deret muy Sayyiduna Hamza Sayyiduna Ali ibn Abi Talib Sayyiduna Ubayda ibn ibn al-Haris ñett ñooñu la tànn te ñoo ñëpp ay mbokk lañ ñu ko jege lool yàlla def ñoom ñett ñooñu nga xam ne ñooy jullit yi yonent bi tànnoon ñu daal di rey ñett ñi nga xam ne ñoom la yéefari tànnoon ci rey bu gaaw ci la tibbee loxob suuf moom yonent yàlla bu tedd bi daal ne shaahatil wujuh daal ci ñaan bi mu sànnee suuf soosu rek ci la yéefar yooyu yëpp mel ne lu fat pënd bi daal di jolli xeex bi daal di tàmbali ci loolu ci la yéefar yi ñu rey ci ñoom ñu baree baree bari jullit yi it wane seenu njàmbaar bu baax loolu moom la sëriñ bi di nettali waaye nettali gi dafa mel ne ci ñaari anam la jëm bu njëkk ba mooy taggagum tagg saxaaba yi ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak melal gum melal bis ba nam tare woon ak nam meloon beneen façon bi mooy wàcc gi nga xam ne moom la malaayika yi wàccoon ca Badar ak nam demee woon ak nam yéeme woon mu def ko ci ay abyaat waaye di jëlaat ci saxaaba yi kenn par kenn di leen tagg-tagg yu rëy loolu moo tax daanaka xaaj bu ñaareel boobu noonu nga xam ne mooy lu jëm ci wàllu malaayika yi wàcc bu ñu wàccoon ci xare ba moom lañ koy beral bindu boppam waaye daal ñoom saxaaba yi jàppal ne mboolem kilifay saxaaba yi ñëpp teewoon nañ ko Seydina Usmaan rek moo ko teewutoon ca yonent bi moo ko joxoon ngànt mu toog ngir ne soxnaam soo suñuy wax Ruqayya di doom yonent bi sallallahu alayhi wasallam daa tawatoon tawat ju metti yonent bi jox ko ndigal mu toog toppatoo doomam soxnaam soosu nga xam ne mooy doom yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak saxaaba yi nga xam ne ay ndaw lañ woon seeni at dafa néewoon ay xale lañ woon ku ci mel ne albarra ibnu asib ak ku ci mel ne abdullah ibnu omar ñoo ñëpp yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo leen dëpp ci yoon yi ngir seen at yu néew sëriñ bi bi mu koy nettali noonu mu xëre ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne léppam ay tagg lay doon ak julli bi mu koy nettali it ay tagg ak i melal yu rëy yu muy melal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay tagg yu rëy ay melal yu muy melal saxaaba yi waaye di ko booleeku julli nee na salli ala laysin shafa bi yowmi badrin iswafa ma sihaabil xunafa bi ahdihil muazzami sallim ala badrin jala du jal xulubi wa ala sawil maqaamatil ula wa xisbihi wa azimi xat qaama xayrul basari wasta xiyaari zumari ila sawi takaburi kal badri wasta anjumi muy tàmbali julli waaye ci ki nga xam ne moo jiite woon julli li muy yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne mi ngi ko melale mooy gaynde goo xam ne nii daal moo seeral xol yi mooy saafara xol yi ca bis boobu ci njàmbaaram ci xereñam gu mone waaye saxaaba yooyu nga xam ne ñooy saxaaba yu tedd yi ñoom it nga xam ne ñooy borom maqaama yu kawe yi mu ñaanal leen waaye it melal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci melaw woowu nga xam ne daa meloon ne aw weer woo xam ne nii daan na ci biiri biddiw noonu weer wi di fese di wër ko ak leer nee na daal noonu la sallallahu alayhi wasallam yonent bi sallallahu alayhi wasallam meloon. ak ña nga xam ne ñoom la àndaloon ca xeex ba muy saxaaba yi waaye it bis la woon bu tar ci yéefar yi yawman bi histaddal nidaal yawman bi histaddal qitaal yawma taarufi rijaal yawma rida wal wajami bis la woon bu tar ci wàllu ngànnaay ci wàllu xeex bis boobu moo nekkoon it bis buñ xamee ñan ñooy góor ñi bisub ngërëm la it waaye bisub gàcce la ci yéefar yi ndax bi xare bi tàmbali abu jahlin dafa wax yonent bi ne ko bisub tey bii ci lañuy xam ñan ñooy góor ñi bisub tey bii ci lañuy xam sa yàlla ak sama yàlla jën ñoo ci man tëkku bàkku moo tax bis boobu mooy bis biñ xame dëgg-dëgg ñan ñooy góor ñi waaye bis mooy mooy bisub ngërëm tey it mooy bisub gàcc wa salika yowmul falaax li sixtidaai wa rabaax li sirtiqaai wa salaax li kulli shaxsin muslimi bisub texe la bisub yëkkatiku la bis la boo xam ne nii ci la saxaaba yi doxi yëkkatiku ba faw ña ca teewoon it ca la seeni daraja yëkkatiku ba faw ndax ginnaaw yonente yi kenn ëpp leen daraja ki maqaama waaye bis la boo xam ne nii ci la leen yàlla jéggale seen bàkkaar yépp ya jiitu woon ak ya dikkagut yépp bis la boo xam ne yonent bi xamal leen ne leen du weesu tey lu ngeen defete rek suñu boroom toppeetu leen dara ndax bu lislaam taxawee ca dëgg-dëgg ca bis boobu la yawmun bihi xat xafara sunuba man xat xadara xitaaluhu rabbul wara kabiratan kalamami bis la buñ leen jéggale bàkkaar yu njëkk yaag yu mujj ya yu mag yeeg yu ndaw yi yépp bis la boo xam ne ni it mi ngi melal saxaaba yi ne dañoo meloon ne ay gaynde yu mer ñoom ñooñu nga xam ne ñooy boroom yitte yu yëkkatiku yi laaxaa su sul xayri sixaab fiihi sawit dayri sixaab wahum maan usdun xidaab sawar sawarti faaxi himami bis la boo xam ne ni it seen njàmbaar dañoo meloon ne ñuy xëccoog dee ñoom saxaaba yi dañoo meloon ne ñu yàkkamtig dee tanaazaul mawta maan wal kullu minhum sajoxa te it kenn ku nekk ci ñoom amu ci kenn ku ñuy joxoñ ne kii nii la taxee woon ay ñoom ñëpp ay jàmbaar lañ woon ñoom ñëpp it yabqi lixa liqa aw yusraha li xubbi maahil gumami tanaazaul mawta maan wal kullu minhum sajoxa yabqi liqa yabqi liqa aw yusraha li xubbi maahil gumami ñoom ñëpp it dañoo yàkkamte woon dee dañoo yàkkamte woon daje dañoo yàkkamte woon it ab jàmmarloo ngir lu neex yàlla ngir bégal lislaam ngir bégal jullit yi looloo tax daanaka ab yaar yi ci toppaat yépp day wax wàccug malaayika yi ak njàmbaarug lenn ci saxaaba yi yooyu yépp incha allahu taala buñ dikkaate ci bind bi ci topp danañ ko leeral wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu